Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. C'est Animation Medzo SN. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Merci pour les abonnements. maaleykum maa ngi di nuyu di leen zaare yéen ñëpp ku nekk nag xam nañu tey jii kàllaa fi dalal tey loolu du sax commentaire ku ñuy ku ak ku ñu ñàkk kalal da ñëw toog ku raw nag xoolal da nga koy perte doo toog amati. ñii toog nag ñu ngi koy wax Kounkandé eh. léegi dama koy bàyyi mu joxe aviam waaw nu leen nuyu. waaw maa leen nuyu yéen ñëpp moom kenn ma laaj ñëpp xam nañu. waaw kookooy Kounkandé jàmm sante na nuyoo ba pare waaw lu mu wax la rek gars yi kenn du laaj fii nii tojoon na fi xaw ma na bu am dina tojaat fii. léegi dama lay laaj benn question masu senegal ak Burkina Faso nan lay demee. billaahi wallaahi barki kéemaan Sénégal dina dóor Burkina 2-0. te Sénégal ay ah nga ni ñaata lay dóor. ma ne la Sénégal 5-0 lay dóor. dama ju 2-0 lay tànn waxal lu leer 5 ak 2 moom wuti nañ trop 5 nee jëm 2 nii jëm waxal lu leer 5 wala 2. yéen xam ngeen ma man lu wax day am waxoon naa fi damay xotti géej gi kilifa day nii ñoom waxoon ma bàyyi ko ñoo ma ñaanoon ne ma bàyyi bul xar seen fu mu nii nag Ibu déglu mu baax Sénégal 2-0 lay dóor maa ngi wax. dégg nga mi ngi nii mi ngi wax na ko lu leer. mais dama le bàyyil benn question ma tëj ko nag géej bi da nga foon da nga koy xar te xaroo ko dama nga waxee da nga koy xaroo da nga daw toogoo